arbitre bi sifflé na dox ci diggante Tony Junior ak Modou Jam Terry Tony Junior Modou Jam Terry ndaysaan Tony Junior Modou Jam Terry Tony daw nañ jàppante jàppante ñoom ñaar Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri ñu ngi ci compétition bi Tony Junior Modou Jam Modou jam teeri fi mu jàpp baax na Modou fi mu jàpp baax na Tony ma ngay bañ Tony ma ngay bañ Tony ndaanaan la ci lamb champion la ci làmb waaye moodu fi mu jàpp sori na baax na Modou tal na ko bañ na day bañ Modou dugal bopp bi te Modou day dugal bopp bi ba tey Tony Junior Modou jam teeri Tony Junior Modou Jam Téeri ña ngay jàppante Tony Junior Modou Jam Téeri Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior jàppante nañu Tony nga koy jéem a wàccee Modou bañ na Modou Jam Téeri Tony Junior Modou Jam Téeri Tony Junior lan moo nar xew Modou Jam Téeri Tony Modou Jam Téeri Donu Junior Modou Jam Téeri Donu Junior Modou Jam Téeri Donu Junior mbër may na jëli ko tegg nañu suuf wala déet doon nañ koy faqat bañ na da ko bëgg a wër bëgg a wër daan na ko Tony Junior daan na Modou jam téeri ndaanaan la ci bëree waka la la Tony pangalang la daa war a bëri ci bëri dóor bi bëri daal daan na Modou jam téeri Tony daan na ko jël bu